asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yéen ñuy suivre seen télévision bu mag bi di Gaston Production mbokk yi tey déplacé wu nan ñu ñëw fii Pikine Ridis yaakaar naa ne li fi xew neex na neexul waaye tamit la aaya ba waxan rek ci la ñuy ñëwaat kullu nafsin saa yi xatun mawti bakkan bu ñam dund di nga ñam dee kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami ba tax na tey la saraxu sëriñ du Niang ñu def ko ñetti fan ginnaaw ban ko yóbboo Touba denc ko fa muy koo xamante bi nii nag nit ku baax la muy nit koo xamante bi nii du xuloo du xeex du tongoo du xëccoo kenn mësu koo àtte ci dara muy nit koo xamante bi nii dundam gi da naan positif na di ko ñaanal rek yàlla na ko yàlla xare àjjana mbokk yi te yeexañu te ñu ànd ak équipe bi yëpp ñëw teew fi macha allah bokk ñoom tiis bi bokk ak ñoom naqar bi mbokk yi kuy ko promoteur kuy journaliste képp ku nekk ci làmb wala ku nekk ci àdduna bu fekkee ne du Modou Niang jikkoom yi nga xam ne na ko am na ci yoo ci nawe tuuti jël ko nga def ko ndénkaan jël ko nga def ko jikko joo xamante bi nii da nga koy doxe muy milieu bii nga nekk ci biir làmb Serigne Modou Niang mosuñu ko woo ne ko kaay yaa fi wax lii Serigne Modou Niang mosuñu koo atte Serigne Modou Niang mësta tongoo lu ko waay gën a soxla mu bakkoog yow tey nag dëddu na fi yaakaar naa ne loolu lépp ñu ngi ko koy waxal te afa mu fi nekk daan nañ ko ko waxal kon yaakaar naa nit la koo xamante bi nii dundam gi man am na loo xamante bi nii naw naa ko ji te à partir de aujourd'hui dinaa ko jël mu nekk li nga xamante bi nii dina ma dolli ci sama ay jikko donte sama jikko am na ci lu baaxul mbokk yi di ko jaale mondu làmb yépp boo limee da ngay juum dañuy dugg ci biir wan leen mondu làmb njabootu làmb ak ay mbokkam ak ay xaritam ñëpp nga xamante bi nii teew nañ fii ci saan gi tey fa yéene koo ñaanal suñu borom xaare ko àjjana tey yeexuñu barke Cheikhul Khadim jaajëf Khalil ci kanam tuuti. léegi nag yaa ngi ñu fekk ñuy waxtaan suñu biir man ak ñoom buur géwal sama jarbaat sama doom ak ñoom mbow naan ko ki fi man gëm naa ni. mën nañu am keneen waaye ku mel ni moom man xam naa ne man du ma ko am ci làmb ji ndax 2008 la ma jël def ma micro central ba léegi muy 13 ans ci ren te fekk na yàgg naa ci làmb si 69 ba léegi kon xanaa moo tax nit ñi xam ma kon su am naa droit ne ku mel ni moom dootu ma ko am man sëñ Modou mooy ni koo xamante ni dee na fi ne dee na ma nga Touba tëdd dal yal na ko yàlla jéggal yal na dajeeg yërmande suñu borom waaye làmb amelu kenn fay na ma fay na Papa Ndiaye fay tëggkat fay woykat loolu ku ko a gis. lamb samedi bi. lamb bi mu dee sam samedi boobu bi ñu ko denc Touba te ñu annulé lamb ja fay na ñëpp kon xanaa kon kii la yàlla yàlla bëgg kii la yàlla leeral ay mbiram ba mu leer kon ñu ngi koy ñaanal ci barke Serigne Touba suufas Touba yàlla na woyof tooy ci kawam ñu ngi koy ñaanal yàlla bu ko cet jiitu si bàmmel di ko ñaanal tamit njabootam gi mu fi bàyyi yàlla na yàlla barke bi si kaw kaw. di ko jaale axlu làmb yi yëpp nag sama njaal gi jox naa ko président des communicateurs traditionnels suñu papa Mansour mbay jox naa ko tamit moom mooy Bourkhane Wade président des ménagers jox ko Pape Abdou Fall président des promoteurs ak Dieye seen euh, promoteur authentique jox naa ko président des écuries ak école de lutte muy euh, Cheikh Tidiane Niang jox naa ko tam nga xam mooy président des entraîneurs muy jox naa ko tamit nga xamante ni moom mooy les écuries les les les lutteurs en activité Gris Bordeaux waaye jox naa ko les anciens gloires njaal li teg naa ko ci loxo muy Manga 2 jox ko tam waa groupe baax ma Samba Dieye jox ko jeune amateur góorandoo yi jël naa axlu làmb yëpp njaal sama njaal teg ko seen loxo di ñaan yàlla yàlla bu ko gaaw a fayantoo bi jaay Seydina Mohamed barke sëñ juróom-ñaari yoon maa ngi la koy jaale yow tamit ndax xale nga waaye fi mu ngi des a ba ñëpp xàmmee nañ la te loolu rek am solo boo ñëw ci biir bul fa wut loo am fexeel ba apporter sa li man moo xam xam-xam la wala sa liggéey la wala sa ñax te loolu yaa ngi ci kon yal na yàlla taxawu la taxawu mboolem jullit ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am diine bëgg nit xam boppam nag d'abord. tey yan témoignage nga nu mën a andil ci moom parce que yaakaar naa ne am na loo xam ci moom. waa bari na parce que liggéey na nga yaat man moom euh, lu jiitu xame bi lu jiitu liggéey bi mu liggéey man ak moom. parce que bi ma ko invité matul matul deux semaines bi mu géej sam plateau mu déposé ba sama buntu kër kon kooku amoon nañ kóllëre mais loo mën a xam ci moom mooy baax am diine respecté doomu aadama mais fonk bopp boppam booy seet maa koy wax man la sëñ Modou lu bari yitteelu ko teraanga ji yàlla dénk doomu adama macha allah yàlla dénkoon na ko waaye ci ginnaaw la ko teg am na leen lu ko gënaloon muy jaamu yàlla. ak fonk doomu aadama loolu la ko Sénégal gépp xamee 24 ans la tëgg làmb musul xuloo musu cee xeex musu cee wax ak benn wax boo xamante ni wax bu ñaaw la. lan ngay dénk njaboot gi fi nekk. góor góorgóorlu sëñ Modou nag naqare naa wuutu ne du neex a wuutu waaye képp koo xamante nag mooy góorgóorlu nga sax ci njub ak jaamu yàlla ak fonk say waajur di nga ko mën a wuutu tam nañ yaakaar nag ci njaga parce que jàmbaar la xàmmee na ràññee na. et bi mu nekkee ndaw ba léegi mu ngi liggéey di góorgóorlu kon dañuy ñaan yàlla njaboot gi mu fi teg yàlla na ko yàlla suñu borom sàmm mais kay liy coow li mooy mbëri ndaw yi parce que dafa am ñu nekkoon ci côté bee moom mu nekk ci côté bii côté bi mu nekkoon moom danaa wax ni man centre formation laa yor su ma yëkkatee yóbbu ci kaw gars yi jël man loolu laa fi nekkee est-ce que dina am keneen ku ñëw taxawaat ci place bi mu taxawoon a ah, yàlla na ko yàlla suñu borom def mais sëñ moo daal ñu koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko yàlla suñu borom eh, xare àjjana yàlla na fekki maamam yi baax ya fekki mag ñi baax ñi fekki njabootu Sëriñ Tuubaa gépp jërëjëf yàlla yàlla ñu ngi ziar ah, ñu la fekk yaakaar naa ne dañ lay nuyu rek bàyyi la nga wax li nga xam ci kilifa gi waaw di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna euh, di sant yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad di leen jox seen wàccuwaay euh, bi leen sunu borom jox ndax seen njàmbaar li nga xamante ni si tey moom leen ne yàlla nattoo ba ku ci am soxla wala nga am bés ngeen ñëw feeñal ko ci ngor ak teraanga. kóllëre googu nag loolu rek ngeen seeq ak sëñ Modou sëñ Modou man suma mag la man biisu cee laa def naa ci 45 ans moom addunaam mbokk mu mu am la ko dagg tëgg ñànge ga mu dëkk ba kere muy agsi fii ci Ndakaaru mbokk mu am wurus rek nga xam ak xaalis man loolu laa xam man per Mbow rakkam mbay ñaa bokk nañu atelier lu war a mat 10 ans fii ci tali bu mag pour wax la ne la jàmbaar la mais gaynde la ba pare maandu lool sëñ Modou loo ko musa woo ci àdduna comme ni ko buur waxee barke yoon yàlla maa lu dul njub ay ree nga koy def parce que mënoo koo jéggiloo tali bii bu fekkee ne ak njub la akub taalibe ak maandutee loolu moom d'accord na mais boo tuubee toogee ci wetam wax loo xamante ni dafa safaanoog moom ay ay ay ay ay day daan ah waaye loolu ëpp naa wax waaye dar gémmañ ji parce que bëgguloo dégg lu bon bëgguloo wax lu bon kon tey bu yàlla dogalee tey mu dem àjjana te yàlla na ko yàlla na yàlla na demee ñu yóbbul ko Serigne Touba du ñu ñaan dara lu suufu Serigne Touba muy Touba Gueye sedd guy ci kawam xam nga ni li mu def barki démb organiser làmb fay ñëpp ba ci añ yi nga xamante ni añ yi nga xamante ni moom lañ doon togg pour policiers yi war cee xeewlu ak organisateurs yi barke salaatul faati yi togg nañ ko ba mu àgg bi ndaw si wootee ni Pape Samb añ yi pare na Pape daf ko ni saraxe ko mu ne ko lu xew mu ne ko borom borom kër gee wàcc ñu toog stade ñu dawal oto bi jaarale ko buntu stade bu boobaa te ay jamono day ànd ak Bour Guéweul wala mu ànd ak wala mu ànd ak Samba ñu ko accompagner ku dugal ko ci biir stade bi mu gaare ànd ak moom yéeg ci kaw tribune bi ni teg tey ñu jaarale ko ci buntu stade bi laxas ko di ko yóbbu Touba te mu leer la ni dootul retourné ci àdduna kon loolu su amee ku ci jàngatewul doo nit barki salaatul faatihi li tax nag ma leen di xamal lii li ma leen di xamal lii mooy man mag ña man mag ñeema jàngal waaye maa jàngal gone yi kon nit lépp loo xamante ni yaa ngi koy gis ci lu baax muy référence bu la ci kenn ëpple waaye daa la xamal ne la Serigne Modou ñaa moom Serigne Bamba barki Seydina Mouhamed képp ku fi ñëw da koo ñee waaye amul leen looy tiit ci moom ndax maanute mu ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na ñëpp am jàmm